la boobu ñu dem ci wàllu société Sénégal dañu am problème SDE boobu cadre yi fa nekk dañu am problème ak Suez ak cadre yeeg ndox mi daal bi mu dikkee ba léegi dafa mel ni ñëw na waaye indaale na ay problème du dugg suñu yaram mais ñu ngi koy dégg qu'est-ce qui se passe leeral leen en fait le 21 octobre passé lan ñu yëg ñu ñëpp yëgandoo ni état du Sénégal dafa rompre contrat bi mu amaloon ak SDE si gestion ndox bi SDE ñëpp xam nañu depuis 96 moom mooy gérer exploiter distribuer ndox bi mais à la surprise générale waa état bu Sénégal dafa décider jël contrat bi nga xam ne 2019 lay nekk jàpp 2033 jox ko entreprise bi ñuy woowee Suez. Mhm. Suez entreprise française la euh, mooy nekk deuxième entreprise mondiale lu jëm ci wàllum gestion. Mhm. te seen chiffre d'affaires toll na lu toll ci 15 virgule 15 milliards et plus kon nga xam ne entreprise bu mag la léegi waa SDE ñoom. problème bi mooy SDE dañoo waxoon entre Suez Veolia ak euh, Sénégalaise des eaux ki ki ki proposé prix bi gën a yomb kooku mooy gagné contrat bi SDE mu proposé woon prix bi gën a yomb mais ñu seetlu ni SDE dafa perdre contrat bi loolu moo tax ñoom dañoo dem saisir dañoo dem saisir waa commission d' attribution. du ministère de l'hydraulique léegi recours bi recours bi fa déposé. baal ma ma ma retaan tuuti <laughs> loolu retaan lu ne de ah ku proposé contrat bu gën a yomb nga proposé contrat bu gën a yomb tudd sénégalaise des eaux si je ne me trompe pas. c'est ça la signification mais Suède France la. voilà France la léegi bi ñu demee déposer recours ci commission d'attribution bu ministère de l'hydraulique foofu dañ leen a dañ leen a rejeté léegi nag affaire bi gën na sori parce que. autorité de régulation des marché publics du Sénégal AMP moom lañ saisir te ñu ngi xaar seen tontu léegi moo tax ma dalal monsieur Diouf fii ci plateau bi di ko laaj ñoom waa forum social lan mooy seen position ci boobu la coow. jërëjëf soxna si maa ngi leen di gërëmaat bu baax di leen nuyu ñun ñëpp. jëf nañu ko bay Samb. affaire ndox mi ak euh, Suez SDE ak état du Sénégal comme ni mu ko waxee. ci ñaar fukki fan yi ak juróom ñaar bu ñu génne mois d' octobre ci la ñu doog a annoncé ni Suez moo gagné marché ci appel bu commencé woon pratiquement 2016 ñu toog di xaar pratiquement délibéré bi depuis six mois alors ñun bi ñu déggee mbir moomu en tant que mouvement forum social ñu ne socialement c' pas correct. c' pas correct. Et économiquement, ce n'est pas explicable. Et politiquement, c'est injuste. Mm-hmm. Lu tax c'est injuste et ce n'est pas explicable économiquement. Mm-hmm. procédure appel d'offres internationale nii lay demee jëm ci wàllu ndox. Mm-hmm. dañuy laajte proposition technique. yow bu amee proposition technique nga def ko joxe. man bu ma amee ma joxe bu soxna si amee mu joxe. keneen amee noonu joxe bi ñu defee proposition technique yooyu am na entreprise yu bëri yoo xamante ni duñu joxoon seen i proposition mhm. ñu dépouiller proposition technique finalement ñu retenir ñetti organisation mhm. SDE Suez ak Veolia. Veolia française. Mhm. Suez française SDE rek moo ci bokk ci compétition bi tey Sénégal. voilà ah. SDE il faut sa dire que SDE était en euh, depuis l'histoire en relation. Mhm. avec la Lyonnaise des Eaux. Mhm. mais SDE li ci am ndam mooy on était arrivé à ce que ci capital bi Sénégalais yi am ci au moins 42 euh, virgule pour cent SDE itam ñëwoon na ba tax. li ñu doon wooye expatrié ci entreprise bi. Mhm. ñu dellu lépp France. bi ñuy wax ji kenn moo ci desoon donc tous les postes de cadre étaient sénégalisés. Mmh. donc te defe naa ni. c'était une bonne chose c'était c'est une très bonne chose. Mmh. itam moo taxoon Sénégal bi nu Nations Unies laajte wootee OMD. Mmh. objectif développement millénaire. Mhm. Sénégal bokkal na ci réew yi nga xamante ni yeggoon na ci objectif yooyu jusqu'à 98 pour cent jëm ci wàllu ndox te defe naa ni bu fay yeggee ba am résultat boobu ñu koy ndamoo service su SDE moo tax weer yi nu génn mbootaay yi digg yëpp ci biir ndox daju nañu Afrique du Sud primé SDE bu Sénégal ni c'est la meilleure organisation en terme de gestion d'eau loolu itam ndamu Sénégal la pour ñun mais ndam bi gën a rëy. Mhm. mooy que ni ci capital bi bu ci ay doomu sénégalais nekk jusqu'à quarante et quelques pour cent c'est au moins quarante et quelques mille familles waaw c'est au moins cinquante mille ou soixante mille personnes ci quarante mille familles yooyu yoo xam ne ñu ciy dund. Mhm. donc bi ñu defee étape procédure offre technique ñetti ñooyu ñoo ñoo ñoo ñoo ci desoon ñu ne leen nag léegi nag ku nekk def offre financière. maanaam ba soxlaa marché laajte ki gën a yomb njëkk dama yaakaar ni ci kuy jënd moo gën a yenu maanaa. Hmm. bu fekkee am amul lenn lu laxasu ci ginnaaw. dëgg la bu fekkee lépp jaar na yoon. très bien bu moom nga sa bopp it. très bien <laughs> maa ciy ñëw. waaw donc bi ñu defee offre financière yooyu commission bi gis ne SDE moo proposé offre bi gën a yomb. Hmm. te defe naa ni dañuy fàttali itam ne ndox. du marchandise. Mmh. Nous, on dit l'eau n'est pas marchandise. c'est un bien commun. moomeel la goo xamante ni. yàlla moo nu ko baaxee ñun ñëpp ñu bokk ko. bu nu dee ganee si àdduna ndox anuy teeru bu nu dee génn àdduna ndox anuy gunge. kon doon na loo xamante ni kenn du ko sàggane. donc bi loolu amee ki jàll phase technique jàll phase éco financière nekk premier. on ne comprendre bu ñu dee délibéré encore délibération bi toog na 6 mois ñuy xaar. lan moo mën a expliquer ki nga xamante ni dugg nañu Demba Diop def mbër ñaari mbër di bëre ñu gis ki nekk ci suuf. ñu ne ko yaa keneen ki nekk ci kawam. ñu yëkkati leen ne non non mais yow quand daanuloo kii moo daan <laughs> est-ce que loolu xel mën na ko expliquer nii. waaw wolof dafa dafa dafa lépp ne ku la ëmbal sa sànqal. ëmbal la sa sutura am na loo xam ne leel bu amee da nga gis euh, ay entreprises yoo xam ne ñu ngi fii Sénégal di fi investir c'est juste pour relancer l'économie française moo tax ñu def ko dañu dem entreprise yooyu dañu dem ba daan France amatuñ benn revenu ci ay collaboration ak ay xaritoo ci diggante Sénégal bi nga xam ne amuñu lu ñu lekk nit ñi seuil de pauvreté vingt cinq pays les plus pauvres du monde la bokk France bokk ci septième puissance mondiale ñun ñooy enrichir France ba suñu entreprise nationale bi gagné compétition bi SDE ñu nar koo jël jox ko Suez te loolu askan wi duñ ci mën lu bari ndax ñi ñu jox baat pour ñu ñuy dogalal ñooy jël yooyu dogal te personne ne pourra changer la la la donne Maguette. Ah oui. je pense que c'est là où <laughs> ce sera pertinent tes questions. voilà parce que askan bi ñun mënuñ ci dara ñoom ñooy état du Sénégal. état français moom nee nañ boo waxee ñu ne affaire bu yàgg la mais boo xoolee affaire bi c'est plus c'est plus c'est plus grave ndax SDE ñoom ñoo seen prix moo gënoon yomb comme ni ko monsieur Diouf waxee léegi man li may laaj ci mooy ñoom seen prix ñoo gënoon yomb xanaa dafa am yeneen critères yu nekk ci suuf yoo xam ni moom moo tax Suez euh, gagné contrat bi wala lan. Suez daal li tax mu gagné mooy français parce que temps yi tamit cinq dernières années suñu ndox bi demee fa noonu. waaw xëy na bu amee yeneen critères c'est des critères politiques. Hmm. yoo xamante ni bokkul ci cahier de charge. des enjeux. des enjeux politiques. mais cahier de charge il y a les aspects éco euh, hmm. et les aspects financiers. Hmm. donc bu ñu dee compétir ku ci jàll aspect technique bi normalement bu ñu yeggee ci aspect financier bi foofu la délibération totale bi war a mën a nekk. objectivement am na lu euh, sëñ bi wax sànq am na lu laxasu ci mbir mi ah. ñun bi ñu déggee mbir moomu dañ cee gëstu ak sunu naataango yi nekk Tugal ak sunu naataango yi nekk Suisse ak ñi nekk Belgique ak ñi nekk Italie ñu bokk ak ñoom conseil mondial de l'eau bokk ak ñoom forum alternatif de l'eau mhm. am lu bëri lu ñu xamal ni ci diggante bi moo xew ci diggante Suez ak autorité wu Sénégal te Suez li ñu ko xamal mooy que ni fépp fu mu jaar ay njombe la fa def ñu dàq ko. Mhm. wala mu def fa ay njaaxum ñu rompre contrat. mën naa ci lim Barcelone fii Espagne. Mhm. mën naa ci lim Bordeaux France bi mu dëkk. conseil municipal ba moo daje woon wax Juppé Alain Juppé da nga fii génne Suez. Mhm. ndax lii ak lii ak lii moo tax. Amérique latine Chili Venezuela dañ ko fa dàq. ndax mu fa nekkoon di def ay corruption di mbuxum di corrompre di jël ay marché ba pare engagement yi mu jël ci ci ci contrat yi du ko def. mais fekk na joxe na déjà corruption système de corruption boo xamante ni ñi koy dig marché bi dañ ko koy jox ba pare mais li mu ñi ko def du ko def. moo tax ñu ñaawoon njort ne li taxoon ñu génne ko Amérique latine. Mhm. génne ko Espagne dàq ko yeneen réew yi jox ko sax fii marché Maroc. ville raba mhm. don dañ ko joxoon ma mën ko fa woon def ni mu ko waroon defee kooku bu dee mu ngi compétir ak suñu yeneen société mhm. notamment benn bu nekk ak ñun fii ñoo ñooñu jiitu ko ci ay poñ mënuñu accepter di comprendre lan moo war woon am ci diggante bi ba ñu jël kooku ne yow yaay yóbbu Marseille yaay yow mu dem alors man loolu dafa am laaj bu ma ciy samp. Euh, Sénégal ñëpp ñi ngi consommer ndox mi. te ndox mi naam ñi ngi koy consommer mais teewul it ñëpp am nañu ñàkk xel mu dal ci qualité ndox mi nga xamante ni ñi ngi koy consommer mm-hmm. te beneen aspect am ci boo xamante ni au temps de directeur Abdourahmane Diouf bi mu nekkee woon directeur euh, loolu STE euh, jotoon na xamle ni la qualité de l'eau reste à loolu moo sabab dàqam tey yéen yéen a ngi ci loo xamante ni tey mën nañ ni askan wee leen tax a jóg est-ce que loolu tamit am ngeen ci ak caytu bàyyi ngeen ci xel xool ba xam ñun consommation ndox mi nga xamante ni moom la ñuy naan ba xam ndoxum qualité la wala de oui loolu bokk na ci suñu liggéey. Mhm. forum dernier forum mondial de l'eau dernière rencontre internationale ñu ngi ciy wax ci concept bu ñu wooyee droit à l'eau et à l'assainissement. Mhm. et à l'eau potable. Mhm. moo tax pour ñun lu slogan c'est que loo n'est une marchandise. elle n'est quelque chose sur laquelle on doit chercher des bénéfices. C'est un don de la nature. L'eau n'est pas comme cette caméra qui est une marchandise. Mmh. c'est la vie. Mhm. sunu yaram 78 pour cent yaram ndox rek la. Mhm. mais ensuite foo gis dundu am ndox moo koy mën a yore. muy mala muy doomu aadama muy gàncax donc ndox kenn du ko fooy. moo tax pour ñun non seulement pas dañuy xeex pour que. ndox doon loo xam ne dañ koy bind ci constitution bi c'est de c'est un droit. Mhm. mais monsieur Diouf yow ni ñu ko defee ci yeneen réew yi. wax na ko léegi def nañ ko euh, Chili def nañ ko Amérique latine Venezuela def nañ ko yeneen réew yoo xamante ni dañoo bindi ne ndox. droit la koo ko xañ am na sañ-sañ jóg porter la plainte. Mhm. loolu itam dafay ànd fekk ndox mi sell doon ndox moo xamante ni. war nañ ko mën a daan ci anam yi nga xamante ni moom lañ ko soxla parce que constat bi mooy da ngay gis ndox yoo xamante ni day xonq dinañ ci dinañ ci dellu si waat dinañ ci ñëwaat mais tey ji li gën a jàmp tiwo yi waaw xëy na loolu tiwo yi la waaw mais li nga wax léegi dafa am lu mu junj doy na borom xel boo waxee ne Suez corruption moo tax ñu dàq ko ci dëkk yu bëri yu mu dem day laaj marché ba ñu jox ko ko ndax dafa fay ñi ko jox marché bi bu paree du def dara ci li mu digaale woon ak ñi ma ko digaale woon le cancer de l'Afrique en quelque sorte c'est la corruption ça on n'en disconvient pas boo yoree loxo bu diis moom ci ginnaaw loolu la neex ngay def à ce qui y a un élément voilà. qui parler du sujet dañu koy xool xam naa ñëw jébbal laaj bu mujj monsieur Diouf door dem ci euh, directeur de campagne bi toog ci plateau bi d'accord ayca ñu dem xool mu ànd Fatima Diallo. Fatima Diallo kon ñu xool élément boobu euh, nga xam ne mu ngi wax ci diggante voilà. ministère de l'hydraulique ngir wane ni àndul ci entreprise française boobu di Suez gagné marché bi jëm ci wàllu ndox mi fii ci Sénégal société SDE moom ba léegi pareegul ci wax ji ndax dafa fas yéene dugalaat beneen recours ci ARMP. waaw recours moom daanaka charte appel d'offre bi moom moo ko tëraloon moo ne woon suñu génnee résultat yi njëkk yi maanaam mooy attribution provisoire bi candidat boo xam ne am nga ci loo ci. Eh, loo ci bëgg a leerlu eh, da ngay saisir ARMP pour mu leeral la ko kon loolu moom moo tax ñu saisir eh, ARMP pour mu leeral na ñu mbir mi nu mu demee. bu ñu sukkandikoo ci association des consommateurs du Sénégal recours boobu SDE nar a dugalaat société bi ci yoon la ko teg. parce que ñoom xam nga yoon moo leen may nee ñu def recours kon jàpp naa ne war nañoo def recours ndaxte bu fekkee ne da ngaa jàpp ne li dox doxul ci yoon. te yoon prévoir na ne bu boobaa war nga maa mun a saisir donc ñun d'accord nañ ñoom ñu def euh, li nga xamante bi moom mooy li leen yoon may. mbaa SDE moom nu mu yoree ndox mi moo baaxul ba tax ñu jëlee mbir yi ci ay yoxoom. suñ doon gàttal ñàkkum ndox yi nga xam ne euh, dakaar ak lenn ci yeneen dëkku Sénégal xëy na am nañ ko ci ñaar fukki at ak ñaar yi weesu suñ doon gàttal. li ko waral moom mooy li nga xam ne jumtukaay yi nga xam ne SONES moo koy tabax jox ko SDE dafa matul soxla askan wi loolu amul nuñ ko waxeewul waaye dafa mel nit ñi bëgguñ ko déggee noonu parce que ku ñëw ñu ne la am tabax nañu forage mi ngi génne euh, téeméeri litre pompeel téeméeri litre jox ko askan wi mënoo pompe loo téeméeri litre yooyu léegi yow koy lan mooy sa wàll mooy bu forage boobu wala usine boobu taxaw parce que amul gasoil wala fay loo facture bi wala panne mënoo ko defar te yàlla suturaal nañu loolu amul ci Sénégal amul benn forage wala benn usine bu fi taxaw ëpp lu mu waroon a taxaw ci kaw que ne amul gasoil wala dañ ko couper courant wala boog dafa am pièce bu ko manqué wala dafa paan ñu yéex ko defar donc ñun ñun suñu xeex yépp moo doon loolu loolu yàlla may nañu mater nañ ko waaye yàlla def na bi usines yi yépp dabee matul soxla askan yi xëy na nag ci biir xelu askan wi maa léeg-léeg nga dégg ko da nga léeg dégg ne SDE mënuñu parce que amuñu ndox déedéet suñu amuñu ndox loolu du SDE wala nga dégg ñu ne SDE mënuñu parce que suñu ndox mi ñëw fii dafa xonq déedéet su ndox mu xonq di tàbbee ci réseau bi ginnaaw ñun liñ ci def ba nga xam ne wàññi nañu sax xonqaay boobu la ca des du suñu wàllu wàllu keneen la. ca forum social moom lenn rek la ñu jàpp mooy am na ku bëgg a yàqal société bii di SDE. la dernière pénurie d'eau qui a fait trembler Dakar fait partie du complot. ñàkkum ndox bi fi amoon. ab complot la woon ngir rek yàkkal SDE waaye it euh, ngir askan wi daal di ñaawlu seen liggéey waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon bëgg yàkkal SDE ñoom ñooñu ñoo mujjee yàqule. faisait de sort à faire à vouloir que SDE soit assez c'est eux qui ont été coowal ndox ngi wéy di ub bopp askan wi waaye nag bu dee Suez moom moo gagné marché bi SDE moom ba tey mu ngi wéyal xeex bi ndax société sénégalaise boobu ginaaw bi mu defee ñaar fukki atak ñaar ci secteuru ndox mi waaye it am ci ay raaya yu bëri fu mu toll nii bu ñu tëddee nelaw ndax jàpp nañ ni liggéey bi ci yoon rek lañ koy mus a jaarale looloo waral nag ba yaakaar nañ ni recours bi ñu bëgg a amalaat ci ARMP dinañ ci jëlee ndam. bu seddu guy ici autour de Dakar. <laughs> Bon. Ah, merci de retour sur le plateau appelé l'élément euh, qui nous rappelle que l'eau c'est la vie comme l'a si bien dit tout à l'heure monsieur Diouf. Maguette, euh, la question pour résumer cette situation avec monsieur Diouf sur le sama dernière question mooy euh, contrat bu Sénégal ak euh, contrat entre état bu Sénégal ak SDE le 21 décembre 2018 la war a jeex waa Suez tàmbaleeguñu travail. léegi dañuy laaj ci entre temps est-ce que du am ay risques yu population bi ci distribution bi est-ce que du am problème. laa lay laaj. oui normalement contrat bi ça arrive à terme. Mhm. mais le nouveau contractuel n'est pas encore officiellement installé. voilà parce qu'il y a une phase boo xam c'est une phase. de contestation. Mmh. et ça peut prendre du temps. bu boobaa ñaari mbir ñoo mën a am xëy na en attendant que le contentieux soit vidé que légalement et juridiquement SDE continue à être. celui, celle qui s'occupe de l'eau. Oui. Ou bien l'État décide unilatéralement que je mets fin au contrat et je valide ou je liquide rapidement le, con, le, le recours qui est fait et j'installe Suez. ci intermédiaire temps d'intermède boobu mën na am mhm. mu am mu am un vide institutionnel légal mhm. encore que les produits qui permettent de traiter l'eau boo leen di commander souvent ça peut prendre six mois. Mhm. fii leeg six mois s'il y a pas quelqu'un qui installé dans les deux premiers prochains mois mën na am bu produit yi jeexee SDE xam ne man comme sama contrat jeex na te xamaguma ndax sama recours dinaa gagné SDE bu ko neexee mu bañ a commandé ay produits. Mhm. Suez mi nga xamante ni man xam naa ne déjà ay cadres ñu ngi biir Dakar di doxantu di xaar installé ay cadres expatriés yu Suez ñu ngi fi déjà à Dakar di doxantu di xaar ñu installé leen. alors que cadres yooyu bu ñu jëlee service dañuy dàq yeneen cadre sénégal donc diggante bi xëy na loolu Suez aussi du mu am am du mun am temps def ay commande de produits de traitement et d' pour que ndox mi war a mën a sell teew set. donc mën na am comme ni nga ko xalaatee temps boobu mu am une période déficit. boo xamante ni sénégalais yi mën nañ ko jànkoonte miin nañ ko est-ce que est-ce que sénégalais yi tamit duñu duñu nekk ci ginnaaw SDE pour pour ñu bokk xeex bi waaw naka lañ naka lañ naka lañ mun def en ce moment là on a donné plein pouvoir aux institutions Euh, législative exécutif et judiciaire mm-hmm. ñoom ñoo ñuy waxal ñu bëggee wax ñun amuñ droit en tant que sénégalais lambda taxaw ne non d'accord ma bu leen ko jox chaise parce que ñoom ñoo ñu war a décider mais su peuple bi bëggee dimbale ay doomam ñi bokk SDE ngir ñu récupérer marché bi ñu bëgg a jox France te SDE gën leen a xarañ te Suez ñëpp xam ne dañu yàgg ci luubal ba réew mi ñu dem ñu dàq leen fa nan la ñu mën a def. li ñu mën a def pour man benn ak ñaar ñett la benn bi mooy ko nii li ngeen di def nii dans les émissions dans les télévisions ci rajo yi dans les journaux il faut que sénégal yi yëg li nga xamante ni moo nekk di xew ci biir Sénégal. Mhm. jëm ci ndox mi parce que ndox kenn du ko ci sa ci dinañ ci bay waar. deuxièmement ñu def fi jonction mm-hmm. ñun suñu campagne le mouvement social altermondialiste mm-hmm. au Sénégal en Afrique et dans le monde on a commencé depuis semaine passée mm-hmm. démb rek laa mujjee waxante ak suñu mbokk yi nekk Belgique ak yi nekk France CCFD Caritas France ak ñooñu ñoom itam ñoo ngi fay wax mbir moomu dénoncer siège ci seen gouvernement ak ci seen opinion gis nga jonction campagne boobu buñ ko defoon journalistes yi jàpp ci animateurs yi jàpp ci homme de médias yi jàpp ci mën na am Sénégal yëpp ak réseaux sociaux yi. ak réseaux sociaux yi sont très actifs. ñëpp yëg yëg mbir moomu mais ñun ñëpp ñu dem contester bu nu convoqué woon marché fan yii jëm ne non à Suez comme ni ko waa Venezuela defee woon. ñëpp teew manifestation boobu xëy na bu ko autorité gisee xam ne mais ki ñu doon defalal marché. Mhm. d' accord te ni ñu ko defaralee marché bi mais na nañu déglu ay baatam. Mhm. pour man kuy gouverner noonu ngay def. Mhm. Mhm. mais wóor na ma itam ne benn mbir wóor na ma li nekk ci biir affaire bi lu rëy la loo xamante ni. Mhm. dig bi ñu diggoon chaise marché bi bu ñu deful pression bu ñu deful manifestation bu ñu deful mobilisation dig boobu mooy continuer dañ koy tañax tañaxee gis nga bi ñu defee recours jëmale ko ci service ministère bi dans les 48 heures ils ont débouté la SDE. te toog nañ 6 mois. toog ñu si mois. pour mënuñu woon annoncer résultat yi. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci leeral yi yëpp mooy sénégalais yi ñoo war a am. capacité défendre seen i intérêt. Mm-hmm. xam nga itam ñi ñu déggee suñu pouvoir. Mm-hmm. délégué suñu politique ne. léeg-léeg li ngeen di def doyunu man de mosuma ko woon naa leen nag dañ ciy dellu si waat mm-hmm. def li nga xamante ni gëm nañu ne moonu doy li ma doy bokk na ci ne bàyyi fi SDE bàyyi au moins 40 plus de 42 pour cent ci capital bi mu nekk sénégalais mu wóor ma itam SDE du dàq cadre sénégalais yi alors que Suède bu ñëwee dàq cadre sénégalais yi indi ay cadre ñoo xam ne déjà ñu ngi biir Dakar di xaar ñu installé leen. d'accord jërëjëf maa ngi koy sant bu baax moom Maguette. Euh, soirée maa ngi lay sant bu baax. parce que grâce à toi et grâce à monsieur Diouf aussi aujourd'hui on a une nette vision de cette situation on entendait SDE Suez État du Sénégal mais là. je comprends. Je suis très actif <laughs> sur les réseaux sociaux. Voilà. Il faut je le vais faire. le faire. C'est mon combat. Et aujourd'hui, ça devrait être le combat de tous les Exactement, Sénégalais parce qu'il oui. y a une injustice quelque part. Mmh. Après, on va revenir euh, sur la question pour résumer la situation en se disant Ouais, de toute façon, c'est l'État qui comprend mieux ce qui est bien pour nous. Voilà. Mais nous aussi, on a quelque part un droit de regard. injustice mënut a weesu maa gagné marché bi. nga ni non yow yi SDE Sénégal nga dëkk am nga pour cent ci li ngay gagné luy duggaat ci réew mi yaa gagné marché bi d'accord waaye dama koy jël ma jox ko Suez. parce que France lañ te Suez fu ñu dem ñu dàqaleen ndax ay co dañuy. dañuy corrompre te service bi ñuy jox nit ñi baaxul. du yoon merci beaucoup Maguette. merci Pape Sidi monsieur